Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak Zahra Iyane Thiam nekk candidate ca mairie bu Sicap Liberté ñoo leen di may seen revue de presse dali jàmm ñoo ànd xëy yër yéen a kaay ñu xëyanto yéen a kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samb xëy wax ci transfert d'électeurs yi nga xam ne bëri na ñoo xam ne ñoo ngi koy tuumalante ci réew mi yéen a kaay gi ne ne bu yi jàllee ñu bëri dañuy wax ne gox bi nga xam ne moom la ñu dëkk dafa am nag seen wujj yoo xam ne dañu faa transféré li nga xam ne mooy ay électeurs te loolee maanaam mën naa yàq lu bëri am na ñenn ñuy wax sax ne ñu ñu fay transféré sax du ñu ay sénégalais maanaam dañuy jóge ci meneenum réewa lii nag mu nekk nekk boo xam ne war nañu ko dakkal bokkul ci li nga xam ne mooy démocratie fii ci réew mi bëri ñoo xam ne en tout cas ñoo ngi leen di tuumaal lu jëm ci wàllum transfert d'électeurs yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na campagne électorale bi ñetti fan moo tere mu moo tax jamono ji gars ñoo ngi koy fast track yéen a kaay las xëy ñu xibaar naan ñu dernier virage bi jamono ji moom la nekk Barthélémy Dias ak ñi mu àndal xam ne ëllëg mooy nekk maire bu Ndakaaru yéen a gi du l'Observateur xëy di xibaar naan ñu fin bi li ci am daal mooy deret yu bare bari joo xam ne tuuru na ci violence ba mel ni tulleeg màlle rawatina ci banlieue Ndakaaru fu ci mel ni Pikines Malika Yëmbal Sud yéen a gi di Vox Populi xëy di xibaar naan ñu diwaanu Mbàkke foofee tamit violence bu métte moo fa am ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñi ànd ak Pape Ibra Diop am na lu toll si ci maanaam ñoom ñoo nga fay defante ndax Moussa Sy maire ba dafa daal di ñi nga xamante ne ñooy leader yu APR yi nee ma Amadou Ba ak Mbaye dafa daal wax ne am na ñaari leader yu APR yoo xam ne dañoo bàyyi ba ci digg guerre bi daal di daw Amadou Ba tontu ko ci biir journal bi daal wax ne jafe-jafe yi nga xam ne moo am sunu diggante nañu ko bàyyi ba élection yi jàll yéen kaay yi groupement yeeg a def ngir am ay financement jamono ji maanaam ñoo ngi koy gi di réew mi xibaar naan ñu militante Bamba Fall bi di associé dafay des ci kasu bi ndax ni ki démb la ñu ko doon atte ginnaaw na bi mu dóoree ki nga xam ne mooy Fatou Wade Fatou Wade di militant Cheikh Ba militant Cheikh Ba bii di Fatou Wade mooy yóbbu militante Bamba Fall bi delsi seen fa mbaxana doone benn démb la ñu doon doon atte ca tribunalum Dakaru waaye mbir mi dañu ko mujj dàqande yéen a kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu centre de redressement yu Serigne Modou Kara nga xam ne am nañu fa faatu woon ba ñu tegoon fa loxo lu toll ci fanweer ak juróom fanweer ak yooyu nga xam ne nii jàppoon nañu leen libéré nañu leen yéen a kaay gi di L'Observateur xëy dañu ñu ginnaaw dogal bi CEDEAO jël ci Mali jamono ji polisu senegal yokk na li nga xam ne mooy ndëgër laayam ci diggante Sénégal ak Mali maanaam ci frontière bi yéene kaay gi di réew mi ko di jeex yóbbuwaat ñu diwaanu Médina nee na nag foofee giraawaale ko njombe guri moo fa naroon a xew ndax Marème Thiombana bool la jël door ko dëkkandoom bii nga xam ne mooy amikol Collé te Ami Collé dafa ëmbuna jamono ji Ami Collé moomee ñu dóor ay bool ma ngi réanimation yéene kaay gi dee sat xëy wax ci Coupe d'Afrique bi ca Cameroun daan nay wax ne Sénégal ci huitième xam na kan lay laalee la Cap la talaata ji nga xam ne moom la ñu dëgmal